sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey ñaanal Cheikh Mouhamad al Muntaqa yàlla sa borom yokk wéram guddal aw fanam ba liggéey bi nga xam ne moom la sémbu te fas ko la yéene liggéeyal sëriñ tubaa yàlla sa borom jàppale ko ci te may ko ci ndam ndax ndamam mooy ndamul jullit yépp rawatina ak taalibe yi mu mel ni suñu kilifa yi nga xam ne ñi ngi ci suñu ginnaaw wax ne donte ne duñ ko mate duñ ko mane ñu jël kàddu ci seenu tur muy njabootu sëriñ tubaa ak njabootu maam Balla ay sa maam Maaram ñi fi teew ñëpp wax ne seenu cant ci yàlla ak seenu sant ci Serigne Touba waaye di sant sëriñ Mountakha ci lii mu leen boole ndax lii kat lu am solo la ndax lii yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon wone ne wax ne jàngukaay yi ñoo war a jiitu jàkka yi ginnaaw jàngukaay yi war a jiitu jàkka yi nag ba mu dikkee te fekk yoon wi nga xam ne ci la Serigne tubaa Xaadimu Rasuul doon dund di ci dund ak ak ay mbokkam mu jàpp ne ginnaaw kenn ku nekk indi nga fi ab liggéey di ko liggéeyal Serigne tubaa yàlla àtte mu agsi fekk liggéey bii nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad tàmbali woon na ko mu jàpp ne àggale ko rekk mooy li ko war kon war naa doy ci ñun xel mu dal waaye doy ci ñun itam ak cant yàlla goo xam ne danañu leer ne taxawaay bii nga xam ne am na ko te fas ko yéene liggéeyal Serigne Touba te ànd ko mbokk yi yëpp ah ñëpp rëy war nañoo góorgóorlu bu baax a baax te jàpp ci te xam ne nag kenn ci àdduna defut lu gën a rëy lii kenn nit defut lu gën a baax lii ndax liggéey bii nga xam ne bii sëriñ bi nga koy liggéey bi ko liggéeyal sëriñ Touba kenn koo xam ne woona la boole la ci war nga sant yàlla bu baax a baax ndax kat leer nañu ne ci kàttanu sëriñ Touba ak sañ-sañam ak man-manum sëriñ Touba bu taxawoon moom Cheikh Mouhamadou Mountakha te nekk fi nekkaayu toog fi toogaayu sëriñ Touba ne dama bëgg lii àgg donte ne kenn fekk ko ci itam dana àgg ndax sëriñ Touba ko moom. sëñ Tuubaa moom lépp ginnaaw sëriñ bee moom lépp nag bu agsi woon boolewu ci kenn te fas ko yéene def dana ko def kon nag bu yàlla dogalee mu am baax ak ub laabir gu toll nii ne ñu ne ñëpp ñëw ñu ànd ci kenn ku nekk war nga xam ne loo ci def lu nekk rek sa ndimbal la àdduna sa ndimbal la àllaaxira te it war nañoo leer ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha képp ku mu woone la kaay ñu liggéey war ngaa sawar ca lam lay def loo ndax mboolem nag ñi ko fi jiitu. di ay waajur di ay mag di lépp kenn ku ci nekk nam la war a toppe toppe na la ko rafetal ko lool kon nag ñu ñii fi des itam suñu mooy ñu topp ko bu baax a baax lum ne moom la bëgg ñu ànd ci ak moom muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon te lépp lu ñu ànd ak moom rek nañu leen ne ànd nag mbir tam Sëriñ Tuubaa kon kilifa yi nga xam ne ñoo ñu jox kàddu ngir ñu wax ci turu kilifa yi nga xam ne mooy waa Mbàkke gépp ak bi ak mbooleem ñi nga xam ne ay jegeñaay lay sëriñ Tuubaa ñu ne ñu léegi ginnaaw jamono ji dafa tàng te te xat nañu fexe ba ñu gàttal kàddu yi ñu ne ñu woon kon ginnaaw ñun ñooy seen ndaw nañ wax ci seenu tur ngir xam ne sant nañu yàlla bu baax sant nañu sëñ Muntaxa waaye sant nañu it sëñ Ahmadu Badawi mi nga xamante bi moom la sëriñ bi teg loxo liggéey bi ci loxoom. te mu boole ci ñëpp ànd ci ak ñëpp kon yal na yàlla sa borom defal ñu ci ndam ah soxna si nga xam ne itam tey moo taxaw ngir fas yéene liggéey liggéey bi mu bëgg a liggéey ci biir béréb bi dafa day tax ñu xam ne Serigne Touba moom am na góor ñi am na jigéen ñi am na mag ñi am na ndaw ñi ñëpp Serigne Touba leen yilif kon ginnaaw moom ci boppam am na taxawaay bi soññee la it ci ñun ñëpp ñu xam ne kenn ku nekk da war a amaat ab taxawaay te amaat ab soññiwaat sa bopp ci foo man di nekk ngir xam ne liggéey bi war na la kon sëriñ bi ñoo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp mbokk yi nga xam ne ñoo ñu jox kàddu gi di ñu sant loo mbokk yi ñu ngi sant Serigne Mountakha di sant Serigne Ahmadul Badawi di sant Serigne Bassirou mi nga xamante ne bi moo yor kàddu Serigne bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah